seetlu gi di benn fii ci réewum Sénégal jafe na loolu nga toog benn ayubés te dégguloo wala nga gis ab tuut tànk boo xamante ne dañ koy sàkku tourné daal di koy faat mu ñàkku bakkanam wala magum jëm muy liggéeyi ñu daal di àgg ci kawam doxalin wu ni mel commencé am ay tànki kanam tiital loolu askanuk Sénégal waral ba kenn ku ci nekk di yëy di yàbbi ci mbir mi bu ñenn ñi jàppee ni parent yi ñoo amatul jot ngir waxtaan ak seeni doom ña ca des daal di jàpp ne dundin gu seer waral na waajur yi toogatuñu ca kër ga ngir mën a di nemmeeku seeni doom di ay kàddu yi Fatou Camara moom mi ñu la mu nekk ci palaasu liggéeyukaayam lii lañu dénk. waaw loolu moom léegi bari na fi torop te man si li ma gis mooy ñàkk waxtaan ak parent yi moo ko waral parce que loolu ñàkk de euh, ñàkk de communication la. parce que parent yi bu ñu ufoon seen njaboot pour man di waxtaan ak ñoom si lu bari di leen yedd peut-être dina dina dina dina wàññeeku daal waaw man loolu laa gis. te parents yi tam ñu ngi xool ñoom it nu ñu dimbalee seen njaboot ñu leen di mën a yoree liggéey bi tam ci la bokk mais boo wàccee am na heure boo xamante ne pour man da nga ko war a sacrifier jox ko say doom di waxtaan ak ñoom waaw man loolu laa gis. waa man doom bu salaam ma koy bu ma koy yedd mën naa ko ne mu def attention mbedd bi wóorul waaw parce que ku nekk ngay dajal daal waaw muy école bi muy mbedd bi ak fu mu mënti doon rek foo génnee di foow yi ak nu mu mënti demee mën nga tasee ku nekk daal waaw dama koy def dama koy wax mu def très attention parce que wóorul parce que sa doom danga ko war a xiir sa bopp di toog di waxtaan ak moom ñemeel ko sa bopp daal ba nga xamante ne tey lu ko dal ci mbedd bi dina am fitu ñëw toog wax ak ak ak yow mais bu dee sa doom bu ñëwee nga yuux ko wala nga gëdd ko du la ñemee wax dara boo ko fasalee sa kanam am na nag comportement boo war a am ba mu ñemee la tamit mais du tax mu ñemee la ba war la def lu nekk waaw mais yar la daal yarin la rek waaw loolu moom man de peine de la mort laa ci gis parce que dafa metti torop muy ku mu dal ak ku mu ñàkk dal yépp dafa metti boo ko xoolee boo xoolee ci sa doom rek di nga xam dafa metti waaw man moom loolu laas gis peine de la rek waaw. mu wuute ak faatu Camara xalaat way jur bi di wuyoo ci turu As Malick ginnaaw ba muy xamle rek ne lenn ci wayjur yi ñoo amatul jot ngir toog di waxtaan ak seenu doom ndaxte bu njëkk nañu doon yare ak yarinu tey jamono jile méngoowul benn yoon yamu ca sax mu ngay xamle ni lenn ci ay xale jigéen bëggum xaalis dina leen dugal ci ay loraange. loolu lépp boo gisee manque survi manque surveillé la doom boo ko juree yow mii ndeyam xale bu am juróomi xamagul dara ci àdduna yow da nga koy tette fu mu dugg xam jël di boot di surveiller sa doom ak a toppatoo sa doom doom boo ko juree da nga koy da nga koy toppatoo bàyyam xëy wuti rek la am xëy dem wuti lu mu ñëw jox njabootam kon boog yow mi nga xam ne yow yaay ndeyam yow yaa war a toppatoo sa doom. toppatoo parce que yow da ngaa jur ñu toppatoo la ba tey nga am doom sa doom jooju da nga ko war a jël toppatoo ko yiir ko xam ci la ci la lay nekk bu ma dugg école nga dugg ko école su ma see dugg alxuraan nga dugg alxuraan mais bàyyi xale yi xëy taxawaalu ngir nan ngir wut xaalis dëkk bi dafa toj li fi am li fi am nii musu fi am Sénégal bu njëkk ba mu yii yëpp musu ko dégg viol yu bëri doo ko dégg déegu bari doo ko dégg diw mii rey nañ nit fii doo ko dégg bi dëkk bi tamit encore servi euh, service d'ordre bi dafa dafa des surveillant ci dëkk bi dafa des ñoom liggéeyuñ de xale yi jigéen yu bëri boo bu fekkee téeméer lañu trois cent yi liggéeyuñu taxawaalu tambaambalu dugg fu leen neex def leen neex kese mooy seen métier doom moom mooy li ma wax bant bant ke tooy tooy ba soo bàyyee ba mu wow boo ko juban danaan talit damm doom boo ko juree da nga koy jàngal diine yar ko yarub diine mu nekk sa wet buy duggee nga gis waaye sa doom génn dem ñëw indi mbuus def ci lu ko neex ñu ne la yaay am ay eh waaye sama doom ji def xamuloo fa la ko jëlee. tey li nga wax sànq ci say i wax nekkul ne way juri tamit am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ñoo waxtaanatul ak seeni doom. lépp nag boo xoolee la majeure partie bi yëpp way juri la doom doo ko neexal doom doo ko nengi nengi doom danga nga koy teg ci yoon. doom da nga koy teg ci yoon doo bëgg lu lu neex sa doom ba tax na yow mii doo ko wax dëgg jël sa doom di ko ne ne ndax lan mi ngi yëkkati benn affaire benn objet may la ko nga ne waa sama doom ji de moom kii moom dafa maa yërëm dafa maa du foofu. kër boo fa nekkee doon fa kilifa kuy dugg kuy génn danga koy xool mais ñoom contrôlé wuñ dara doom boo ko juree da xam ci ci lan lay nekk boo xëyee suba teel. boo ko sangee ba ba pare jox ko mu lekk ba suur jàppal ci loxoom yóbbu ba ca daara ja mu jànge sur le fond nga yóbbu ca école ba mu jàngee ak di ko surveiller xale dañ koy surveiller di ko toppatoo mais sa mais mais boo jëlee sa doom toppatoo wuloo ko moom mooy l'enfant de la rue taxawaay la ñuy def. ak lum ci mën a doon njaw a ngay wéy di de soo xambin ci sàkku gi ñuy sàkku tuut tànk yi jigéen ñi te di leen fàtt doxalin wu ni mel waral na nag ba jamono jile kenn ku ci nekk di woo nguurug senegal ngir mu jël ay matuwaay yu mot sëkk ngir ñu mën a xeex àgg gi ñuy àgg ci kaw tuut tànk yi waaye tamit faat gañ leen di faat ñu indi ci ay saafara mu daal di jóge ci réew mi jamono jile